léegi nag incha allah tey dañu commencé li nga xam ne mooy dëgg-dëgg liggéey bi euh, mooy que ni bu fekkee ne yaa ngi commencé bind comme li ngeen waxoon bi jàll ci leçon bi mooy ñuy bind ma ñëw ci ñaari texte bi mooy bii bi ma ci liggéey bi jàll la booy bind yow da ngaa war a respecté mboolem yi mooy que ni lan norme yi bi ñu ko waxee li ñu jublu mooy lan mooy lépp loo xamee ne da nga ko war a bind nga ko bind yow bul nekk di lijjanti comme xanaa leen ngay war a lijjanti bu njëkk bi mooy texte bi féete ndeyjoor mooy daf kii droite contrôle ak A nii rek bu fekkee sama lay jot nii kese léegi ngay bind boo bindee dafa rëy loolu lépp man sama yoon du ci nekk damay bind ba mu jeex wala boog nga ba am ay 4 pages wala ay 3 wala ay 5 pages nga doog a commencé nag defar sa mise en forme nga mais li gën sax mooy des fois mooy lan ba mu jeex doog a def mise en forme yi yu ci aju ko ñu wax léegi boo bindee ba am ay 4 pages 5 maanaam boo nee ne commencé léegi moo bindee tey bu subaa ma defar bind tey ma defar wala moo bindee tey defar tey pause bind tey defar tey ba pause boo xoolee lii benn thèse la boo suñu mbokk suñu wala suñu Moustapha Lo moo ko moo ko bind mu thèse la ñu ko liggéeyloo boo xoolee moo nekk nii amoon nañ ci ndigal ci moom pour ñu mën ko jël comme exemplaire comme tey jii boo xoolee texte boobu noonu nii la mel texte bi moom au départ dañoo avant WhatsApp dinaa ko indi ci machine bi nii bi ñu ko indee ci machine mooy lan mooy dinaa ko defal ay bordure muy am lu ko wër bii nii amul dara lu fi nekk ndax fii moom moo war a nekk passe bi nga xamee ne mooy passe de mooy xilaaf yi mooy moo tax xilaaf ay faris moo war a nekk li nga mujjee war a lijjanti ak muqaddama bi moo tax yëpp jënd ko jar fii tamit am na lu ñu ak ida boo xam ne jox nañu ko ñu war ko ci def mais ba tey tamit ida boobu euh, bu ñu neexee mën nañoo bàyyi fii benn passe ba bu ñu ñëwaatee doo ko ci def léegi boo xoolee fii après bu ñu ñëwee fii li ñu def mooy lan mooy euh, texte boo xoolee def nañ ko defal nañ ko boo xoolee bu ñu bindee ba noppi def nañ ko fi muqaddima euh, defal ko li mooy kii bi nii mooy comme ni ko waxee ni ñu ko santee après ñu defar mbind mi euh, def li nga xam ne mooy lan mooy titre yi mbind mi boo xoolee gën naa rëy gën naa rëy boo xoolee xatt bi changé na yu bari bari ci kii bi da ko daal am fii nii ci ci kii bi ci biir kii bi comme exemple bii incha allah waaye waaye it amal li nga xamee ne mooy lan amal na bi li nga xam ne moom mooy nag la ñuy fexee ba am li nga xam ne mooy ay hawaamis ci suuf ndax dañ koy soxla dañ koy soxla kon bu fekkee da ngay soxla kon loolu lépp nga daal di dañ koy gis ci suñu documentaire bi incha allah léegi nag kon la ñuy kon nañ jàpp ne ñun IHDA bi boo xoolee moom moo nekk fii ci kanam mais ab page moom garawul bu fekkee bind euh, fig page maanaam wala mën a leeral ko ci beneen kii bi man waaye kii li exemple lay bi am na numéro te def nañ ci ñëw def lépp kon man naa ko bi maa ko doon liggéey ci Word 2010 mais maa ma ubbi mu neexee damay ubbaat Word 2010 bi nii bu fekkee bu ma ubbee Word 2010 bi nii ndax ci laa ko doon liggéeyee xëy na ci la li ma bëgg mu feeñ ci la gën a ci la war a gën a feeñee en général ci lay ëpp ma liggéey ndax mu laa gën a taxam mooy 2010 noonu la 2013 2016 baax na mais kenn ku nekk ak bi ngay gën a min ci des ci liggéey léegi nag ma ubbi bii ni pour ubar ko ubar ñuy ñuy waxaal tamit ne képp koo xam ne yaa ngi bind yaa ngi bind benn texte texte bi bul bàyyi rek ba pare ba war a tëj fay machine doo ko enregistrer ndax loolu wóorul yow leen def heure boo defee dara benn liggéey rek nga daan def enregistrer kut na sa liggéey defaan enregistrer kut na sa liggéey nga xamante ni bu fayé wala nga perte wala wala boog mu am ben problème da nga doon enregistré do ko ñak mais kuy bind ba mu jeex doo ko enregistré bu machine fayé li nga do bind lépp da nga koy da koy perte légui xam nga dajal mu tëj mu tëj bii nii dañu ñëw rek fii sax mën na pas enregistré mën na pas enregistré ma ñew ci fi nga xam moy fan ma ñew ci fi nga xam moy sama sama texte bi euh ma ñew ci Word 2018 معنى ألف من ألف व्हाट्सएप बीमिंग में हमारे यहाँ चली रिक्वायर्ड में फाइल कनेक्शन में ले फाइल कनेक्शन ताकि नहीं नहीं ले फाइल का हो या हमें उनमें चार ऑप्शन चलने में ना को फाइल की कनेक्शन भी फाइल फाइल ना फाइल तो इंग्लिश हमारे यहाँ होगा टुडे लेकिन सॉल्यूट में बोला सोना ना बोन्यो में जब जब किले कितु कंपेयर मारे daf ne dugg du ma indi ci wóor 2010 mais 2010 la ma yóbbu nga man 2010 laa bëgg nag moo tax man damay préféré dugg ba ci biir application bi nga xam mooy 2010 ba noppi mu dugg moo ñëw ci fichier bi nii moo ñëw ci fichier ma ñëw ci ouvrir ndax pour mën maa yóbbee yëpp eh, mooy yi ma doon ñoo mujjee bind mën na ñëw ci comme kii bi maa ngi jum def enregistré suuf eh, jaxar-jaxar yi wala sëriñ sëriñ xam naa ñaar suñu tege léegi ma ñëw ci ouvrir bi nii moo ñu ouvrir après ma dem ci sama bureau bi yaakaar naa fi texte bi nekk ma cliqué ci bureau bi nii ndax bu ma jékki-jékki cliqué ci kon moo yóbbu 2016 te préfet dama liggéey 2016 man 2016 la ko fii comme tey léegi nag comme li ñu waxoon rek mooy que ne texte bi tey li ñuy def tey mooy lan mooy li ñuy njëkkee ay quelques mises en forme la ñuy def bu defee incha allah ci yenn leçon yi di ñëwaat ñu mu ko kër muy jeex tey li may njëkk def mooy lan damay orienté texte bi rek ci contrôle ak a contrôle ak a wala nga ñëw ba ci marge bi nii comme niñ jàngal section yi section lépp def ko mu féete sa ndey yor léegi boo xoolee règle bi ci kaw nii moo lay orienté ci texte bi tuubu pouce nii wala pouce nii man mën naa jàpp ci suuf nii bu jàpp ci digg bi nii bi ci kaw bu jàpp ci digg bi mais bi suuf affaire bi suuf laa jàpp da nga gis ba mu wóor na teg na ci suuf nii bëstee dafa rëcc ma seet naa lépp ñëwaat bi fii nii bëstee pouce ko ba nga xam ne léegi yaakaar naa fi baax na ma puusaat tuuti yaakaar naa fi dana baax baax na nii fii bu dee côté bi baax na nga bàyyi léegi nag ci fii mooy sama texte bi nii mooy fi ñu ko mooy ñaar ay yi wala nga ñëw ci fii bi nii ñëw def ko taille 16 baax na ñoo taille 18 ça ci kenn ku ne ak lim santé wala léegi nag ma ñëw ci fii nga xam ne mooy fii laay changé sama façon mbind comme mu nekk mbind mu rafet am na ay façon mbind yu bëree bëri am na ay arabique Eh, type comme façon bi am na ay façon bii nii am na comme façon bi kenn ku ak bi nga sentir man mën a xaaral ma jël sàkka ma jël la sàkka ma jël la mën a xaaral ma jël bii nii bii nii exemplaire léegi sàkka ma jël moom mooy nekk sama façon mini mini léegi bala ma ko bàyyi ba tamit ma ñëw ci fii nga xamee ne moom mooy ci euh, ci kii bi mooy ci paragraphe ma cliquer ci flèche bi nii ndax ma bëgg léegi mini mi dañoo a tolloo côté yi dañoo war a tolloo ba nga xam ne léegi day rafet du benn débord fii nii tolloo côté yëpp tolloo pour mu gën a rafet kon damay ñëw ba fii nga xam ne mooy ci fii nii ci fii nii lay cliqué nii ma ñëw justifier wala am na bu justifier bii nii gis nga am na façon justifier bii nii yaa la neex man ban ban laa jël wala nga justifier au milieu euh, bi moo laa choisir fii bu fekkee nag fii li mu des dafa xaw bari boo nee nga daal ko yokkaat nii tuuti rek ne ko tuuti rek léegi nii léegi naa ko bàyyi nii léegi nag li ñu des mooy lan léegi nag ma commencé xool sama titre yi ñu ma wàcc leen mooy ma wàcc titre yi ma wàcc nga xam ne léegi lépp luy titre rek léegi may xam ne léegi euh, fii la fii la yem ak fii la commencé léegi yëpp boo xoolee euh, ay kii la léegi diggante bi dafa am espace comme fii ci kaw sax la commencé fii dafa am espace da ngay taxaw ci kanam muqaddam bi nii nga def bi effacé mooy back espace ñenn ñi seen clavier bi ñenn ñi effacé lay doon effacé ba mu yéeg ba ci kaw effacé na yéegal na ba ci kaw léegi diggante bi bu fekkee da nga gis ne dañoo xaw a xaw a dañoo xaw a kii dañoo xaw a soriante te bëgg mu ñu soriante yéen soriante yi damay defar contrôle ak A rek mu cherche lépp da nga gis mu ñëw fii ñuy woowee interligne li ngeen fii nii interligne bi laay cliquer daal di ñëw fan di def supprimer mooy espacement bi mooy supprimer bi laa ko effacé léegi xoolee léegi diggante yi dootu amati dootu dootu amati bu fekkee ne gis nga ba ko 1 bu fekkee ne gis nga ne ba baax na bàyyi mën naa ko def 1 virgule 0 eh, léegi nag boo xoolee lépp xaw nañoo jege yantoo léegi may wàcc mu gis ne kat lii ab titre la gis mooy nekk nii léegi nag euh, ci fii tey dañ dañ ciy jàll mooy bala ñoo kii dañuy xool naka dañuy fexee ba euh, bu ñu amee lu mel ne benn benn xew amee ci suuf ñu bind ko normal doo ko continuer incha allah loolu tamit amoon na benn vidéo buñ ñu ci defoon bu yàgg boo xam ne incha allah mi ngoon ci suñu chaîne bi moom it incha allah danañ def benn description ci suuf vidéo bi nga boo kiwee euh, ci suufam ci boobu TV bi da nga gis euh, fëxëri bi ñu ko defaree mais teewul nañ koy nañ ci jaara tey rek ndax xëy na euh, ndax xëy na teewul ma takaraar moom day gën a saxal mbir rek yàqu dara kon tey dañuy jël li nga xam ne nag la ñu fexee ba am li nga xamee ne moom mooy ay xewaami ci suuf ba mën ko bind ci suuf après incha allah ñu yem ñu waree ci suñu partie bi ñu topp dara du continuer xewaami si nag boo naan xoolee tey ji exemplaire ko si moussa di xëy na dafa amul ay xewaami ndax xëy na xëy na xamuloon nga defar yu ni mel gisee benn espace bu soree espace yi am yi ñu ci woon xaw na wàññeeku bu amee bu bu bu soree bi da nga koy ay taxaw comme fii nii waaw bu mu effacé wu ay nii rek def effacé boo neexee nga dem nga dafa entré mu mu daa koy defaat espacé mais dañuy njëkk xaw a mèche xaw a bi comme tey ci exemplaire euh, ma xool page euh, comme exemplaire laa jox rek après bu ko defee kenn ku nekk mën na ko kii comme karaamati xat yat yi fii xidmati mu ay yi nii dafa am xaw a mèche. dañuy jël guddal man a nekk exemplaire laa jox fii nii. bayit yi da nga war a fexe bayit yi leen lu ci nekk mu beru mu a taxlu ak sa bi ci kaw ma damay taxaw ci kanam alxaal bi nii rek ma def entraîné mu wàcc ma xoolee fi mu toll nii ber na ko mais euh, kuunu ma kuunu maxi bi ne gii nii euh, moom moo moom kese ma war a nekk fii lépp luy bayit moom nekk fii wut ama wut amaat comme tey bu doon woo baax bi nii te wut a continuer damay ñëw ba ci kanam woo baax bi nii ma teg ci sama souris bi def entraîné mu wàcc yaa ngi mooy booy wàcc nga war a respecté li ñuy satr boo bindee loo xam fii la war a yem nga def entrée boo boo ko defee fii bu ñëwee même chose lay même chose lay mel bu dee moom it ay xuraan yi la comme yu ni mel moom it c'est la même chose après incha allah suñu leçon bi di ñëw dinañ ci ñëw ci ay xuraan yi ak ni ñuy def la bay yëpp incha allah suñu leçon bii di ñëw léegi fii nii mën a tey jii exemplaire li jamiay bii nii fii la kii war a nekk moom mooy suñu karaamta xoteel yi bii nii léegi si Moussa bëgg wax léegi mu ne fii la war a nekk exemplaire rek fekk man man sa bin binuguma bin binuguma sama sama sama xawaam si may damay jël exemple rek ma taxaw fi nee taxaw mo taxawé fi ni moy ci kanamu jamiya bi ni la wara nek ma ñëw ba def man ma ñëw ci onglet eh, bi ñëwee onglet référence da di cliquer fi ñu woowee leen insérer une dépense fi ni ma cliquer ci mais boo xoolee fi mu toll nii un bi indi na ko fii mais bo xolé mo nekkaan ni ci kaw moy ci kanamu jamiya bi ni léegi un bi nii nag dafa nek fi sama ko def côté jor ma ñëw ci accueil bi ni def ko mu féete sama côté ndeyjoor waaye bu dem na ko doon côté ndeyjoor yaa gis mais tere bi ñëwut mais tere bi garaawul après danañ ñëw leeral naka lañ koy indee léegi lii sama kii mooy lan mooy léegi dama bëgg léegi bii nii ma ay xaws mooy ay parenthèse dama ko nii ba nga xamee léegi da ciy nekk léegi nekk na parenthèse mais moom dafa war a tiim dafa war a nekk ci kanam ci kaw ayen bi nii ma daa koy sectionné moom kese yaa gis daa di ñëw fii nii ci kaw fan kaw x bi nii léegi nga nga def ko léegi mu daal nekk ci kaw mu tiim ko léegi xam nga da nga ko sélectionné bu dindi sélectionné bi léegi dama bëgg rek la waat ci sama machine ci sama clavier bi touche boo xamee ne heure bu ko bësee rek ci sens bi damay indil numéro 2 sans may dem di rek la waat mu may sonal pour loolu mën a nekk nag il faut kon lii nga sélectionné doo ko dindi mais da nga ko def léegi léegi nag li nga ko sélectionné nii noonu nga koy bàyyi nga daal def lan doo dindi ni nga koy sélectionné noonu nga koy téye mu daal di ñëw ci fii nga xamee ne moom mooy ci fichier bi nii yaa ngi gis daal di ñëw ci fii ñu wooyee option bi ñëw ci fii ñu wooyee vérification bi ñëwaat ci option de correction bi nii yaa ngi gis léegi nag fii lan lay def fii nag ma xool ci sama machine ci sama clavier bi touche boo xamee ne en général li ma koy bës bëriwul ngir ne heure bu ko bësee rek ci sens mu indi ma benn xew message bi ci topp ndax bu dul loolu euh, comme tey jii dina xam ne choisir leen touche boo xam ne dañ ko soxla bëriwul waaw boo choisir un wala deux wala trois A wala ay C wala D des fois nga soxla loolu lu bari bari ci ci booy bind te boo ko bësee rek ci changé da ngay da ngay indil xabaar bi te man soxla ma boo xam ne dinaa ko soxla mais xëy na li ma koy faral di soxla bëriwul ma xool choisir benn man maa ngi choisir sama machine benn boo xam ne mooy bi nekk ci kaw entrée bi moom laa choisir ma bës nii boo xoolee ma nekk noonu ngay gis mu feeñ ci kaw ndax moom li ma koy soxla bëriwul xëy na dinaa ko soxla waaye waaye bëriwul mais ma def remplacé def wii gis nga dal def ok yaa ngi gis defaat fii ok fi ni legi bax na legi mën kan naa ñu taxaw fi ni ci kanam ba dee am ba sa ci baree bi ni wala ma def lan ma def touche bo wala ni nga ci sensé rek da ngay sen legi léegi ni nga eh, indi na un indi na deux indi na deux boo xoolee indi gis nga am legi léegi yow du jarati legi nga ñëwaat ci référence diko régler ya. réglé nah, la nah, lan legi touche bo da ngay eh, bëss heure boo ko soxlaa rek touche bo ngay bëss legi nak bu doon nak da nga da nga yow soxlo soxlo woo bi mais jëmmi touche bi nga soxla wala boo mosee touche boobu nii xam nga indi na deux bi damay effacer rek deux bi mu rafet bàyyi la soxla mais moo tax nag bu fekkee ne da ko man nga effacer doo ko tey mooy def ko touche boo xam ne xëy na nga koy utiliser bëriwul mooy genre yooyu nga xam ne da koy xàmmee man heure boo ñëwee rek da koy def wala normal léegi nag biñ paree ci lool ci étape boobu li ci topp mooy lan mooy ñu fexe ba tere bii nii ñëw nekk côté bii nii moo lañ soxla tere bii ñoo nekk côté ndax nangam ñun arab lañu bind na nekk côté bii pour loolu normal nag damay cliquer ci affichage bi nii yaa ngi gis daa di choisir mooy brouillon bi nii ma cliquer ci yaa ngi gis bu ma liggéey ci brouillon bi nii lan lan laay defaat voilà maa ngi ci exemplaire maa ngi woon ci maa ngi woon ci fii mooy ci fii nii bëri ak nii damay dem ci onglet bi ñuy onglet référence xam nga boo xoolee page bi nii la nekkee woon yaa ngi gis mais boo ko defee mu comme plan plan wala brouillon boo ci def rek day changé gis nga changé na man waa ci onglet référence même bii lay bësaat mais bu ko bësee dafa am lu ma ci soxla xoolal ma bës ko boo ko bësee automatiquement ne da na léegi indi na fii nii benn tere bu feeñ ci suuf te boo xoolee nekku foon xool tere boobu nekku foon xamaa ma ko bës nekk fóon mais boo ko bësee rek dafay dafay nekk tere bii dafay nekk léegi nag damay effacé deux bii nii deux bi lay effacé man ma man ma arrêté sax pour mu mu effacé ma deux bi nekk fii ndax soxla ma deux man laa soxla mu ñëw léegi nag ma cliqué ci flèche bi nii ar ñëw fan séparé séparateur bi la soxla mooy deuxième bi ma cliqué ci léegi lan moo ci tege moom léegi tere bi mu ngi sa côté càmmoñ léegi da dafa war a ñëw ko daan ndeyjoor nu ñu ko defee ma demaat sama amul ak kayit ndax jàngoon naa ñu ne ma kat lépp lu bëgg a def mu dem du côté côté la jor nañu côté bii ma ñëw ba fii nii ma ci cliquer nii yaa ngi gis la moo ci tege léegi nag pare na léegi nekk na sama côté lay jor kon dama war a delluwaat sama page mel nam meloon ma demaat ci onglet affichage bi nii avec choisir bi ñëwee page bi boo cliquer ci page bi nii rek automatiquement léegi da ngay seetlu léegi sa page normal ànd donc xool bu ko saatee touche boobu automatiquement da ngay seetlu léegi télé bi day nekk sa côté lay jor en même temps yëpp da nga xam ne yaa ngi am un léegi ñu ñëwaat ba ci beneen page bi naa ko ba ay ok nag ok la ëpp may utiliser moo tax juru ngay bës ci yenn onglet yi nii mu ñëw ci la ko def mooy numéro 3 gis nga 3 la nga fii deux lay moom day continuer fii 3 man nag léegi bu mu dem page bu mu dem na commencé un comme bu fekkee ne fii un deux lay bu ñëwaatee bu mu continuer turam ndax mën nga dem ba am sa information day bari yéen bari te doo ko jaar wala man du ma ko ma def ko mu nekk loo xamee ne day ñëw chaque page mu changé dama ñëwaat ci même onglet référence surtout ndax référence lay ñëw rek bii ba du ma cliqué fii mais fan laay cliqué bouton bu ndaw bi laay cliqué da nga gis léegi bouton bu ndaw moom daf lay lan nga bëgg sa information mooy nekk 1 2 3 wala ABC yooyu yooyu duñ ko laal sauf 1 day mais nag fii ñu bind continuer bii nii laa soxla ci lay cliquer léegi mën na la nga ne ko renommé à chaque section am na la ñuy section ci application bi ñëw Microsoft Word mais xëy na ñun dañuy bii moo ñu ñëw mooy renommé à chaque page mooy lan page boo dem rek commencé ak 1 yaa ngi gis mu cliquer ci def appliqué voilà si changé rek da ngay seen léegi xam nga bii dafa defoon 3 mais léegi lu mu ko def a 1 ndax dafa bi mu génnee page bi fii dañu ñëwaat fii boo ñëwaatee fii nii. beneen passe boo ñëwaat ci li waa jamee bi nii nga defaat lan comme touche boobu automatiquement day commencé 1 ndax da nga ne ko lan renommé fii touche bi naan renommé à lan renommé à kon loolu mooy li nga xam ne mooy lu kon tey yaakaar naa mbokk yi foofu la ñuy taxawandi <laughs> ci suñu traitement bi mooy lu concerne kii bi mooy xawamis yi ci aju di leen jégg lu baax xam naa incha allah suñu leçon bii di ñëw dinañ gën a continuer ci avancement ndax leçon ko wax du nekk leçon yu bari xam naa ay quelques épisodes lay doon bu demee bay bëri du weesu cinq incha allah loolu lañ bëgg bu bëri bëri xanaa xam nga woon ñaar lay toll mais incha allah kon xam naa kon ñu taxaw ne foofu lépp lu ci leer ci lim bi la lépp lu ci lënd ci suñu ñàkkoon a leer la yoon na ko jëg lu baax wa tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu